parce que noonu li moom xam naa li mu doon jaay yàpp moom lañu jëloon li muy jaay yàpp moom lañ jëloon moom lay yóbbuwaat na le wala côté bi fi nga xam ne moo jëm place de l'Obélisque fi nga xam ne moo jëm place de l'Obélisque ma ma grand nan mais grand yéen cag-cag yi nan ngeen dundee situation bi. ak la lii wóolul war ki sëñ Tuuba ba gisaa lii du la gisee war na sëriñ ñu def avec ça nii nga ne soxna soxna soxna mooy fitna bi fekk yow yaay ngan ñu seetaane war ki sëñ Tuuba lii ñaaw na trop. moom tamit jeune la motoom cag-cagam la yor. teguma ko woon fii. Macky Sall li ma ko woo kenn fi accès ah si adu bi yëpp Macky tas na sama yaakaar kenn mënu fi accès tas yaakaaru gis nga noonu mooy yoon bi nga xam ne moo jëm place de l'Obélisque lii nag ñëpp si war a si ndax réew mi ñu doy waar trop ñun ñëpp Macky Sall moomu ko ay mbokkam moomuñu ko papa moomu ko ay maamam moomuñu ko mm. Sénégal gépp ko moom na ñëpp génn ngeen taxaw ngeen manifester waaye tey ay yaakaar bu tas ak gàcce moom la daal di am loolu dafa bokk ci li nga xam ne waaw voilà mbokk yi moom internet bi mu mën a doon rek mel ni presse nañu ñu leen ko waxee manifeste yi nga xam ne tey jii lay quinze heures jotee ñu ci la daal di tàmbali yéen a ngi dégg foofu ba tey grenade lacrymogène yi nga xam ne ñu ngi koy sànni muy ndaw ñi nga xam ne dañoo taal pën a yenn saa yi tam. yaa ngi dégg noonu. tiir lacrymogène yi sax mën nañu wax ne.

doxal gis nga noonu dafa mel ni nag mbooloo mi commencé waat nañ génnaat gannaaw rek ba fi policiers yi jaaree xaw a jàmbaarloo tuuti ak ñi nga xam ne ñooy takk der yi ak manifestant yi. jaaroon nañ fi dafa tàng bi loolu gis nga fii nag yëpp gis nga manifestant yi jaaroon nañ fi parce que dañuy def kali bi loolu lu doy waar lépp rek pour accéder fi nga xam ne mooy place de la nation gannaaw bañ fa wootee li nga xam ne mooy société civile bi ak ci yenn parti politique yi ak euh, yenn ci mouvement yi pour accéder fi nga xam ne mooy place de la nation mais nag euh, depuis euh, quinze heures ba tey wala quinze heures moins ñoom itam gis nga manifestant yi ñi ngi jàmbaarloo ak ñi nga xam ne ñooy takkader yi ak koñu Médina yi koñu Fass ak fi nga xam ne mooy Colobane mais nag ba tey gisaguñ fii benn ci leader yi nga xam ne ñoom ñoo fi woote muy ci opposition bi ak ñenn ci ay candidat yëpp nag li ko waral mooy report bi nga xam ne mooy euh, le président Macky Sall mu ngi ko doon mu ngi ko bëgg def pour def li nga xam ne mooy report élection yi li nga takk der yi ñu ngi ne leen gis ne taxaw ko gis nga noonu oto police bi dañu noonu di ñëwaat Yeah.